ku ne xam na ne Wally suma suma Wally la mhm. Wally suma frère la suma jantal joo la macha allah mhm. te nag euh, wax dëgg yàlla yàqu ci dara mhm. ndax ànd ku ne xam ne àndu léegi dafa metti jamono ji léegi dafa xaw a tey di dara joo xamante ni boo amul boo amul ak dal rek euh, mën ngaa yàq sa ànd ak sa doom sa sa ki ngay nekkal mm-hmm. mais yàlla suturaal nañu ba ku ci nekk rek yaa koy sàmm ci fànn yoo xamante ni macha allah ba ci fier bu bi c'est normal c'est normal papa ci moo papa ci moo ni boole njaboot weer mm-hmm. ci yor woo xamante ni rek la walé du suma rak du suma xarit et puis euh xam may kan tek ma sama place fonk ma lool kon nak man li ma wax moy ma gëna ko cër bi te it noonu rek laa doxe te loolu ma war. alors amadi euh, récemment gis nañ ci soirée bi mujjee am bobu euh, wali way la mu mu mel lu la laal wali yag na la way mais way bi mu la mu jé way bobu dafa mel dafa dafa la laal. kaw ci kaw chaîne bi am na loo yëg est-ce que mën nga waaw waali moom way dama fu ne waaye bii bii da cee raw way bi daf maa yóbbu foo xamante ni way mosuma faa yóbbu ma sama sama tout au cœur wallahi lazim way na ma fu ne ci premier album premier morceau single mi la ma commencé way album bi mu génne way dama ci waaye bii da cee raw te li ko war rek la def li ko war rek la def keroog ci kaw seen bi am na ñu fa xew. ma gis la nga mel ni ku bëggoon jël micro waal yi am loo wax parce que gis nañ sa rajo Ndiaye Bandaye fekk am kàddu yu ñu ci bëggoon nga wax est ce que mënoon mën nañu wax la nga bëggoon wax. non rien du tout Sarafa bi. waaw la ban waat suñu bopp rek. dafa aw nañu nekk suñu bopp xam nga bu jugee ci béréb ñëw ci béréb. da nga koy yaatal. ah bon da ngay confirmé kon day ñëw. non non non wax nga dama confirmé day ñëw de. dafa nit bu jugee ci béréb ñëw ci béréb. Ah. da nga koy yaatal. ndax mbay suñu doom la comme aw ban waa dañu nekkee suñu doom waaw léegi bu ñu ci bërëb ñu ci bërëb waaw dañ koy yaatal. déclaration ñoo ko gisee est-ce que da nga koy jeté la bi yóbbu est-ce que c'est officiel. non non non non Kaaw Kaaw non c'est la famille. gis nga fii adduna bi ñëpp ñoo bokk ndaw ñoo bokk ndaw ñoo bokk bàyyi fa mu jugee fi mu ñëw képp benn kër la si la Sénégal bu baax waa Ligue sini juga pada di bulat dan aku ini saya pun semua nama ambil secara berat lain saya itu wali pada pemuda mana masalah kalau saya wali berulang kali ini kok analisis ini yang kemudian ya arma ya awal ya eh, distribusi eh, dan yang ini yang eh, es kau sendiri baru lagi eh. buat wali gimana nih saya gimana maanaam Wally géej la. bu la xamee. ok euh, tey bésu bànneex la mais yaakaar naa ne dinañ xaw am naqaru xol tuuti ndax boo seetoon tey. Hmm. Euh, sa doom ju jigéen ji euh, toog papa coon taawu ko ci ay loxoom tuddal ko boppam. wallaay la ndax papa papa coon.